accord naa ah. loolu Touba la ah. d' accord léegi kilifa gi mhm. parce que waxtaan bi daan neex de telle sorte que temps bi ngi dem te yëguñu ko mhm. xam nga mbirum sport mhm. jeunesse bi fi ñu toll ni ñoo moom àdduna bi te Sénégal jër na Coupe d' Sénégal ngi jëmaat Coupe d' dama lay laaj rek de sëriñ si am na ñu naan Sénégal dina jël sëriñ si am na ñu naan Macky Sall day nekkaat président sëriñ si am na am na ñu naan euh, euh, Côte d'Ivoire kenn mënut a fexe Sénégal gagné coupe bi waat. Mhm. am na ñu fi waxoon ne coupe du bi Sénégal du àgg sax quart de finale. Mhm. possible na. Mhm. comme yéen ñi tey. ngeen xam lan mooy xew suba. luy xew ginnaaw suba. coupe d'Afrique bii di ñëw ndax Sénégal fan la ciy toll. mën na nekkool wala te mënut a nekk ndax bu mënee nekk ndax mën nga ma cee wax wala mënoo ma cee waaw xam nga tey jii. Mm. loo xamante ni bari na ci lu doon am loo xam ne ñu ngi ci biir. bari na ci yooyu lu doon am loo xam ne ñu ngi ci biir waaw aha waaw yi ngeen ci biir waaw <laughs> loo bëgg a wax foofu yéen la ñuy laaj génn wax waaw dama ne bari na ci yuy am yoo xamante ni maanaam ci xeeti football yi wala dara yoo xam ne waaw ñi ngi woon ci biir aha waaw muy ban maanaam maanaam yii fi yii fi am nii nii waaw maanaam coupe d'Afrique bii nii waaw am na ci koo xamante ni mi ngi fii doon ancien joueur waaw maanaam match bu nekk waaw bëgg bëgg gu bëgg senegal ndeysaan day yëkkati nangam maanaam fay ma. nga def ci sa ñaan. waaw mën nga maa dimbali rek wax ma koo kala dimbali ma rek ma ne ko ma ko max bi nangam la ne Henri Camara a bëgg Sénégal ndeysaan. waaw ndeysaan ah. waaw maanaam Sénégal am xoolal ma loolu rek ndeysaan ah Henri sa xarit la. suba sama xarit la lool. match bu nekk day yëkkati ne la maanaam jàppaleel équipe jàppaleel équipe bi. xam nga loolu tey nga koy wax baax na. Henri Camara. sénégalais pire la. defal Sénégal lu rëy. cey coupe du monde ba. Sénégal Suède. ba muy déborder. di dugal gars yi tëb. <laughs> la Sénégal Uruguay. ndeysaan ñoom Paa Booba Diop ndeysaan. ñooñu dañoo servir seen pays. Uhuh. te kenn mësu koo dégg ci dara. dëgg kenn mësu koo dégg ci lu ñàkk fayda. kenn musu ko cee dégg te bu ko neexoon nag def lu ko neex mhm. ndax am na jamono yi mu téye woon Sénégal mhm. yàlla may ko teraangay àdduna dëgg la waaye làkkat la mhm. te làkkat xamul caaxaan dëgg la ku mu dem ci moom di la jox xaalisam ne ko ñaanal la réew mi wóolu na kooku dëgg kon c'est important nga mentionné yooyu tur dëgg la loolu baax na dëgg la da doon ñëw ci pour nga ñaanal réew mi maanaam équipe bii nii lu lu mu bëgg la lu mu fonk la ndeysaan mu dafa war bokk ci staff bi lu mu bëgg la lu mu fonk la te maanaam da koy def te bëggul kenn yëg ko d'accord naa kon jàpp nga ci ñaan yi. mais mais possible na. nit toog fii tey xam li xew suba. Ah, waaw wax la ne Sénégal dina def. li li waaw waaw match mën naa am nga xam ne match bii nangami bii sax ci dugg. waaw yow gisagoo dara yow ci ci Coupe d'Afrique bii ñu jëm. maanaam nag saytoo guma ko ji. xoolagoo ko waaw. waaye waaye waaye buñ ci buñ ci àggee soo ma ko laajee bu la neexee waaw bu la neexee sag mas wax ma ma ne la mas bi nangam lay demee ci kàttanu yàlla tey mu neex de waaw nga dema mas bi ma wax la ne mas bi nangam yi lay demee élection yi ñu jëm 2024 bii ñu jëm waaw situation Ousmane Sonko bi mhm. baatin la mhm. du baatin mhm. ñaan la du ñaan sëriñ yee ko sot wala sëriñ yi sotuñu ko wala lu normal lu naturel la lan la maanaam ndax dana génn ci kaso lan la leen daal xam naa ko ci maanaam moom mayu yàlla la am Uh-huh. waaye ñi koy jàppale nag uh-huh. nan ko jàppale dëgg dëgg ci baatin gën koo dolli ci baatin waaw ndax man maanaam bu yàgg waxoon naa ni neneen mm. maanaam lii nii bu muy tuut mën nan ko ci indil gàllankoor am na fu ma ci toll nag ba am loo xamante ni du ma ca mën a sori ndax maanaam am na loo xamante ni maanaam xam nga ko am na ñoo xam ne xam nañ xam naa yàlla xam na am na ñoo xam maanaam mbirum moom xam nga ne maanaam mbirum suñu borom la dafa loo xam ne mbirum suñu borom maanaam suñu borom bëgg gi ko nit waaw loo xam ampleur gi mu am ci réew mi waaw loolu moom yëfi suñu borom la laa ilaha illallah dafa bëri maanaam maanaam loolu yàllaa ko may loolu waaw te mayu yàlla nag kii bu demoon élection dix heures mu gagné maanaam waxuma la dix heures maanaam xanaa ak ñàkk ak ñàkk ak ñàkk ak ñàkk demam élection am waaw moom la ñuy tiit ok uh-huh. waaye maanaam bu bu ja duggee amul ku mu koy seqal moom amul ku mu ko seqal déedéet ndeysaan waaye cat da koo topp waaw maanaam ak yàq wala lal la xam nga te yàq wala cat topp maanaam gis nga sëñ bi mu juum ci yenn yi wala lan la maanaam du loolu de gis nga sëñ bi ah. gaa yi maanaam am na pexe yoo xamante ni nit sëñ ñemewu ko ñemewu koo xam ba bari génne ko wax ko hmm. wallaahi alxasim bari na lu nit di wax loo xam ne xamu ko wallaahi alxasim hmm? wallaahi léegi yow 2024 bi ñu jëm nag dafa am loo xamante nii dafa am xeet yoo xamante nii maanaam fu ñu ko defee nit mhm. nan ko bëgg utiliser mën nañ koo def noonu te xaddu damm gis nga bari na bari na ay gaay yoo xamante ni fii nii téye woon téye woon nan nguur bi diwu nguur a ngi seen loxo ñu foqarte ko waaw lépp yéen a baatin gi maanaam am na si lu waaw dama ne lu bari na ci baatin mën na lu ne sëñ bi am na loo xamante ni boo ci follee nit ba juróom-ñaari maamam dootul falooti wallaahi laxasim am na tur wu ñuy wax kay fa sa jamakin boo ci follee nit ba juróom-ñaari maamam dootul falooti ñi koy liggéey nag pour folle nit xam ca sa fayka la ñuy la ñuy liggéey moo ak doomam yooyu noonu boo ci follee nit dëgg dëgg dëgg maanaam sexal ko nagu ñuul liggéey secret bi maanaam maanaam ma liggéey secret bi li nga koy liggéey waaw soo ko ko liggéeyee wallaahi alxasim ba juróom-ñaari maamam kenn dootu falooti yàlla sunu borom lii moom maa la ko wax léegi leer na ne kon maanaam waxuma nag ne waxuma nag ne loolu dañ ko def Ousmane Sonko dama damay damay damay na ci ay mbokkam nañ ko dolli ñaan waaw maanaam ñu gën koo taxaw gën ko dolli ñaan parce que nag moom moom suñ borom dogal na ne am na ñaan ah. waaye nañ ko gën a dolli ñaan